siyaar waa monde entier di siyaar waa Ndakaaru euh, di kontaan ci jëmm ñëpp di euh, naan ñëpp am jàmm du ay caaxaan Ndakaaru Sénégal Afrique monde entier kontaan nañ ci jëmm ñëpp barki Cheikh Massamba yàlla na ñëpp am jàmm di nuyu sama yaay di ñaanal sama baay yàlla xare ko àjjana ci barki alxuraan. ok sénégalais moom laay wax rek dafa am loo xam ne nee naa leen bu jiitoo sa dënn lu ñëw dalay yomb du ay caxaan muy arxuraanul karim di soññ famille ku ci am sa doom mu màgg xàmmee yóbbu ko arxuraan yóbbu ko daara mu jàngi arxuraan bu arxuraan jiitoo dana ko yombal ci lu baree bari lu baree bari dana ko yomb lu baree bari dana ko mën a régler te du sonn alxuraan mooy def noonu moo yi ngay dégg ak yenn affaires yi yëpp fasaaxa li ñuy wax fasaaxa dalay yombalal loolu kese la te bu génnee neex ñëpp yàllaa ko dogal di kontaan nag ci jëmm ñi muy neex ak ñi mu neexul ak ñëpp kontaan nañ ci ñoom waaw alxuraan daal laa la mën a xamal ni moo liggéey loolu du ay caaxaan. ah maître ñun daal sénégalais yi daal ñu ngi ñu ngi daal maître ban secret la am boo ko boo ko gisee ci synapse bi daanaka day baatu record bi bu ñëwee ci wàllum acteur bi. waa benn mooy nga rafet xol yéen a ñëpp jàmm li nga yéene sa bopp ci lu baax nga yéene ko doomu aadama yi ci lu baax su ko defee yéene day nekk néeg borom moo ciy njëkk a fanaan nga yéene nit lu baax yaay jiitu nga yéene ko lu bon yaa ciy jiitu balaa caa nag ñu muus mboŋ yéenente lu baax waa yooyu yëpp ay baax baax la yoo xam ne moom moo ko baaxal moom the king of pour gis ku ko gën a baax lu jafee ngi noonu waali dafa respecté nit ba gaaw a jooy waali dafa yërëm nit ba gaaw a jooy waali dafa mboŋ xam luy gaañ nit te du ko def waali dafa muus a muus a muus ba xam loo xam ne bu ko waxee nit mu déplané wu te du ko def bokk na ci ñu gën a yaru ci histoire yaraate bu doon examen moo ci jël P bu doon concours mu jël P bu doon lépp lu mu doon moo ciy gañe ndax li ko def noonu man xaw ma ko nit nag du complet waaye li yàlla bindee ni yàlla bindee waali dafa wuteeg ñu mu bindee ñu bari bari respecté na nit am na yërmande ci doomu aadama kookoo tax nag man fu ma toog dama koy waxal li nga xam ne moo ko def du ma ko waxal lu mu deful du ma ko kéréel barki boroom Touba Mbacké baax na yéeme nag am na yar bëgg na nit boo gisee buy jouer concert barrière bi xaw a lemu nit ñi di kii mu topp ci di ko régler di ko régler ba ba jël ci une heure temps ndax day bëgg ñëpp nekk si jàmm kooku mooy the king of the waaw. national mais au niveau international a wax bu mag yaa yéeni Singapour bu mag bi kooku kaana bu mag a mag la doo ay caxaan caaxaan xareñ eh, suma xaritu benn bakkan la dëmb tey soog a ñëw ñaa man maa doon nit bu ko waroon njëkk a yóbbu mu yéeg ci avion te boobu Casablanca la ñu waroon dem billet bi tëb mu def sama kër une semaine ni du génn ndax daa tàggoo woon ba pare kan kooku man moom yàgg nañ. mille neuf cent après après deux mille quatorze la njëkk a voyagé ànd ak Wally dans ma ville avant deux mille quatorze waroon naa ko yóbbu ba Maroc biyee ba tëb kan kooku sama waay la daf ma daan wane nag fu ne ci addina fu ñu tasee réew mu mundoo doon muy fale nga xam ne muy Paris di Espagne di di fépp épisa fépp fu ñu tase su ma yegsee dana wan waa Ndakaaru ne Metshop ñëw na loolu nag ku sa waay nga ko mën a defal sama xaritu benn bakkan la kaana bu mag a mag la dañoo yàgg ñu nii xaw nañu coow trop trop sax mooy ci séquence yi mën a waaw li mën a leeral ci loolu rek mooy Khalisso Badjo euh, école la buy jàngale séri boobu école la dafa am jàngale nag du côté bu côté bu nooy bi rek ngay raay da ngay raay fu côté bu bon bi nit ki boo koy faj da koy defal analise fu nekk nga jox ko garab ba koy faj jàngal la xaalis du àddina xaalis du defar kër xaalis du tax nit ki torox ñàkk ko am ko ak yëpp mënul tax kër gi naqari wala kër gi neex maanaam nag gaa yi gën a delloo seen xel ci yàlla xam ne xaalis mënul dara nécessité pour pour nécessité kese la bu la jaral ñàkk ngor bu mu la jaral bàyyi sa bu bu mu la tàqaleeg dara sa àdduna Xaalisou Badio ca jàngale ba dafa toll ci foo xam ne nii ma ngay wan ñi nga xam ne dañuy ñoddi ustaas te duñu ustaas nga xam ne doomu aadama yi yor yàlla dafa leen teraanga ñu am xaalis xaalis boobu ñu am xaalis ba dem ba mën leen ëpp leen doole ñu làkk français euh, je voulais un un, un ustaas waaye pour euh, étudier mes enfants ñu utal la kenn koo xam ne si baa gudd rek te du usaas bu ñëwee nag ngeen dem bàyyi koog sa doom bu làmbatoo sa doom yaa tooñ sa doom kooku du usaas usaas yaa ngi fa ñu war a nekk ña nga ca madarastun yi di xaar til di xaar tilmisun yi mu am ay mudirun te ay directeur nga xam ne da ngay jaar fii jaar fale inscrire ñu la sa doom mu dem jàngi arxuraan ci école yaa ngi fii ci réew mi gouvernement bi maa ngi ñaan ñu yokkaat école arxuraan yi su ko defee yow problème yu am yu bari oustaz ba nga xam ne daa yàqantaan 32 taalibe ya oustaz ba defoon nangam ak sàngam yooyu wàññeeku ci réew mi jàngal la nañu dem gis nga ñiy seetaan ñoom comprendre nañ waaye ñu am ñu bëgg critique ña ngay critique waaye ñun ñoo leen di corriger waat Xalisso day jàngale comportement ak yi ñu war a moytu ak nañu war a doxalee xaalis li mu mën dafa bari am xaalis gu baree tax mu uti oustaz boo xam ne du oustaz dugal ko ci këram ba oustaz ba def fa naka su noonu yooyu la ñuy moytuloo waa senegal ñu ne nag déedéet dañuy kaas waruñu ko moytuloo waa Sénégal nañ bàyyi ustaas yi nga xam ne ay faux ustaas lañ ñu dugg si biir kër yi di yàqataan xale yi su ko defee nangam nangam sangam sangam ñun loolu duñ ko nangu dinañ wan gars yi ne ustaas original ñu ngi seen ñu ngi si daara yi toog ñoo ñooy ustaas original ko am sa doom yóbbu ko foofu waaye à domicile nan ko mooy tudd ay caaxaan li mën yàq dafa bari gis ne aussi tamit ci biir théâtre bi am waa li ma leen mën a wax mooy ñu gën a góorgóorlu bañ a xeeb benn métier ci àddina man mii ngay gis livreur bu mag a mag moo toog nii parfois ma am junni wala ma am ñeenti téeméer yoo xam ne dafa lew maa ko liggéeyal suma bopp deux mille francs yooyu su ma yemalee sama reer yemale sama ndékki barki borom Tuubaa Mbakke dinaa dese ñaar téeméer àddina dara jarul xeeb ci kaw suuf film boobu livreur laa ni ma toogee nii sax laala wax nii moto baa ngi nee ma gaare XADV bi boo ma yónnee léegi ma dama la nga fay ma man li ma ferege ñeentew ma li ma sonal bariwul nu ma def ba cof rek laay wër te mu leer te bañ am benn loraange bu mu doon maa ca. waa loolu sant yàlla jullit ci mu yonent bi la te xam ne ndeysaan changement ba ma doon bu ñu doon wax mu ngi am ndax lu mel ni tey théâtre national art la ñuy wax loolu maanaam dafa bokk ci liy dindi stress dafa baax ci doomu aadama yi ak dëkk bi ni nga xam ne nii dafa stable gul son excellence président Bassirou yi ma nga ca ànd seeg euh, premier ministre Ousmane Sonko ña nga ca di xool nañ koy doxalee ngir mu baax kan tey ñooñu luñ mën mooy jàppale leen jàppale seen askan ngir lan ñu mën a dàq stress ci na nga koy dàqee mooy lu mel ni xaalisoo waa Evenprod ñoo indi la proposé la nga jël ñu xam ne dëgg neexul tele bi mu ngi décentralisé ndax loolu lañ ko sant kan lu mel noonu baax na na ko gars yi sollicité carrière bi liñ ciy xaar mooy xam nga bit disque door ak ballon d'or footballeur yee koy jël disque door waykat yi yooyu yëpp bu neexee yàlla feek sama waa TikTok ñu gën a góorgóorlu ak sinap bi ak yéen waa Sénégal ak monde entier disque d'or ak ballon d'or yëpp naa ko boole. ngi kontaan ci seen jëmm di kontaan ci Khalifa Benz ministre de la Mercedes kaana bu mag la doo ay caaxaan mbokkum yaayu njiin pën a mati Babacar Taïf jërëjëf kontaan nañ ci sa jëmm El a ah Baye Karim automobile kàngam kargo da baax kargo Ilimaan Gueye mu Serigne Saliou Fallou Colobane di daw na yaram galas baram oto yi su bu ndaw bàyyi ñu kenn du ay caaxaan histoire dina ko bind jazz électronique jidd électronique yéen ñi ma jàkkaarloog ñi nga xam ne télé buy dox la te ñu war leen jox cër xam ne seen tele bii télé buy dox la kan na ko gars yi jox cër du ay caaxaan lu wow koŋ gi ñuy wax tundóori ma te lu wow koŋ mu ngi nii du ay caaxaan waaw waaw maa ngi kontaan ci jëmmu ñëpp naan gaay yëpp axlan wax saxlan bienvenue du ay caaxaan du wow foog tu ndóori ma te fërëf